asalaamaaleykum waa père maa ngi lay siyaar yal na yàlla nangu siyaar booy amin waay mais per te dañ fii pour def benn dessin animé bu bees bu waa Lego Entertainment war ay fan yu néew yëg nga ko ah bi la ah mais kon père ah, waaw booy man waa Lego Entertainment dama am contrat ak seen benn chaîne YouTube bu tudd Lego Comédie dama am contrat foofu moo tax lépp lu ñuy def dañ ma koy yëgal ah oui loolu la kay mais nag ban dessinée bu bees boobu di butiku koñ bi du daw fii si Lego Comedy de beneen scène bu bees bu tudd Atlantic SN Production lay daw voilà léegi mun nañ bàyyi réalisateur yi mu dawal ñu tuuti ci dessin animé boobu comme ça gars yi xool booy café Touba hee sa café amul suukar de duñ ko fay. e eh, xoolale eh, Pulo bàyyi sa dof nga nekkee dafoo jinne jàpp la mënoon naan sama café ba pare naan ma ay saful suukar ba nga xamee loolu la tere nga delloo ma ko. man it doon tàngal sumu biir rek café bi amul suukar booy café Touba hee duñ ko fay de. salaamaaleykum pël bu rafet. hey Rihanna Ari eh waay Rihanna egg si. cey ak a saf xorom kii. waaw professeur yoo nekk namm naa la. ay nammanteelu de ay nammanteelu de. waroo gëj boutique bi wax naa la waroo fee gëj. yow dumul jóg boisson kese dem ci teg leneen dem la jóg vingt mille francs nga boole ko ci bu gan bi di ñib nga jóg paas. ñeenti junni nag pël bu yow su ma la amul woon dama lay créer. déedéet bul mu création def mu tubay rek nga may sol ndax mun laa jege. loolu rek nga bëgg. mais boy dessin anime bi war na neex ah wow waaw père da ngay laajte ki kay tukk sa bënn doon boy mbaa butiku koñ bi du sama fans No per suluh. Soulou yow gars yi sen bob. bon de toute façon yow yokkal cere dolli ñeex rek concurrence moom foo jaar mu am munu si Boy de moo booy ñun ragaluñu loolu de ñun concurrence tim alaaji Soulou Ndiaye ak xaali rek waa gars lubes tak. lu dessin animé boutique koñ bi deux premiers épisodes yi nañ ko lancé dimanche bii le 3 janvier Inch'Allah. allah xaar ko 17h maanaam 5h si ngoon dinañu partager benn vidéo bi fii si Lago Comédie comme ça boo leen ko jotee ngeen mën ko Si te boo leen ko seetaanee ba pare bu leen fàtte ngeen abonné si chaîne de di Atlantic SN Production parce que vous lay dawee chaque semaine comme ça ngeen mën faire ko chaque semaine Inch'Allah.